Heavy Bass.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 si bannaaru lay sàmmkat bi mu ngi woo ci turu M Sow at toll ci ñaar fukk ak ñett baykat bi ñu fàtt yi woo ci turu Beka at yi toll ci juróom fukk boobu musiba nag nee ñu mu ngi xewee ci Touba Medina di ab village bu nekk ca Daaru Muxti li indi yëf yi nag mooy nee ñu juri sàmmkat yi ñoo duggoon ci toolu baykat bi bi loolu amee baykat bi ñëw ci sàmmkat bi nekkoon na ay juram ñu génn toolam sàmmkat bi mel ni ku ko faalewul di wane ne sax dafa beeg ci li ay juram dugg ci toolu baykat ba <laughs> waaye kii yow mën a tooñ bi ko baykat bi interpellé ba sonn mu lànk ci la riir wuti tool yi ngir dàq jur sàmmkat bi dal di koy intercepté <laughs> waaye kii mën naa tooñ de naka noonu ci la jàppante doxante ci seen biir sàmmkat bi dal di rocci jaasi cor baykat bi ci loxo goos bi loxo bi dal di këtt wadd mu wan ko ginnaaw ne bëxër ña dal di daw xoolal ma ji jëf ji ñaaw rek ci noonu la baykat bi dal di tëddee dereer gi di ay baykat yu doon jóge tol ñoo ñëw mu tëdd ñu yëkkati ko di ko évacuer waaye ci yoon bi la ñàkkee bakkanam sàmmkat ba di pël bi def lu ni mel nag bi ko baayam yegee la ko nekk victime dal di yóbbu jébbal yoon waaw góore waay fi mu ne yoon a ngi def liggéeyam moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona la wax Sénégal ñàkk na réew mi wét na waay salaamaaleykum a toutes et a tous bienvenue sur Rewmi TV canal 40 TNT nous sommes samedi comme tous les samedis votre émission Rewmi Show s'installe avec toute l'équipe des animateurs de la radio et de la télé alors bienvenue à tout le monde studio Rewmi wét na plateau yi wét nañu micro yi wét nañu ay waay yaa mën a war waay technicien bu mag ba dem na animateur bu mag ba dem na ay waay baatu wurus wi daan riiral réew mi fay na borom maxi musique dem na borom li ci aar bi dem na DJ boy boy Léon Paul Mendy dem na comme on l'appelait suñu doyen dem na dem na ba fi naqar wu dootul fay ndeysaan foo ko mësaan gis ba ñi ngay seen ay ay gaalu talent bi amaloon njariñ ñëpp suux na léon ñëpp la rendre service xam-xam bi ko yàlla joxoon ñëpp la ko bokkaloon mosu cee siis mënoon a kafre ay waay doyen nax nga ñu ba dem réew mi quotidien weet na réew mi tv weet na réew mi point com weet na promo consulting réew mi network ñëpp a jooy xol yi tooy na rongoñ tuuru baaxoon tabe wàcce sa bopp fonk liggéey nga ñu jàngal le grand doyen doo mës jóg ci xol yi li nga ñu jàngal na flambeau bi du mës a fay drapeau bi du mës a laal suuf ay waay fu ñuy jëlee te ku mel ni yow doyen sa bis tiis na ñëpp a li des kay mooy di la ñaanal fa nga jublu gën fuuf fi nga jóge le grand doyen comme ni ma la ko doon wooye restera toujours dans nos cœurs rest in peace jàmbaar matal nga lépp peace comme li ma ko defee sànq rek ñaanaat rek mhm. la nga xam ne weesu nañ ko muy lu bon mhm. donc yàlla bañ cee tàbbi la mhm. euh, donc li nga xam ne lu naes la donc ñu gën cee puus